sëñ bi man la Souleymane Ndiaye directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal comme noo ko gisee fii ñu ngi si tarmagu aéroport ma sekk Ndiaye bu Saint-Louis gis ngeen ne amul même benn tox ndox bu fi nekk ay nit nag ñu nga xam ne mal intentionné yow sa kër su amee forte précipitation taw su amee immédiatement soo jëlee ay image ne fii dafa taa loolu ay waxu caaxaan kenn gisu pépp ndox ndox mi si biti la nekk nekkul ci biir aéroport terrain de foot boo gis ne moom moo am tata maintenant gars yi foto yooyu leen def montage ne aéroport bi Ousmane Masseck Ndiaye dafa inondé te loolu ay waxu caaxaan gis nga taxiway baa ngi ni piste baa ngi ne amul pepp ndox bu fi nekk la tour de contrôle est là aérogare baa ngi ni ak hangar Essely yëpp ngi ni alhamdulilah